mbaa cent mille franc mbaa cinquante mille wax bu jërë damay wax dama ne fii la ma gars yi dagg yaa ma dégg fii la ma gars yi dagg ba ma desee bu sew kenn mu si woon kaas ñu aj ma fi six mois mu si woon kaas yaa ma ne mënu cent millions ah man sax ñooñu man sax ànduma ak man de ànduma ak ñi ànduma ak ñële mais dama wax loo xam ne am la yaa ma dëgg ma ma fi kenn sama wéeru waaye néew di fii muy waa kër Ablaye Wade yi yaa ma dëgg ñii ma boole ak ñoom ma dëgg mais damay wax loo xam ne moo fi am sama personnellement 2007 mais Abdoulaye Diouf Sarr combat Tyson Bombardier te Macky Sall nekk premier ministre yaa ma dëgg jour boobu nag dañu maa sama xaalis ba ma desee weccet mais dëggoo benn mbër bu bu kaas dëggoo benn ma kenn musul kaas ma dem Italie am fa un mois 15 jours ñu jabar sama ñaambur lii nag te ñu bëgg a kaas man na man am na fu may teg sama tànk la man nag lu Alioune Sarr wax moom laa ànd ak sa non du ma naa fekk du ma kenn waaye yàlla oo fay wax wax seen moom fay yaaw kenn wax ak moom parce que ñun mënuñoo dugg fii ci ministre bi noonu di jël ay ay